moo bind mbindéef yi ci kattanam mooy doxal mbir yi ci xikmaam maa ngi koy sant di tudd sellam di ko sant ci diggu guddi ak ci bëccëg yi di tuub di dellu ci moom lu njëkk dund gi di jeex maa ngi seede ne amul benn buur bu dul moom amul lenn amul bokkaale mooy kenn mooy ki ne maa ngi seede ne Seydina Muhammad jaamam la ndawam la moom la tànn moom la yónni ci mbindéef yépp yal na yàlla julli ci moom ak i ñooñam ak i saxaabaam julli ak sëlmal goo xam ne dañuy taxoo ànd li feet guddeeg bëccëg ñu ngi tox salante yàlla na yàlla sëlmal ci moom sëlmal gu bare bare doomu aadama bi yaa ngi ba kañ ngay jëf bàkkaar ak ay ñaawteef yaa ngi may sa boroom sa boroom mi ngi lay suturaal yaa ngi béral sag mooy yàlla ak sag fetéerlu te ragaloo mbugalum sawara xanaa da wurus yàlla mi kenn xanaa doo jooy sa bàkkaar yow doomu aadama yow doomu aadama bi xanaa doo yeewu lu njëkk woote kat bi di woote ci laxas génn àddina doo tuubal yàlla ci wax ju am njariñ ji ak ju amul njariñ ji ngay def jëfal lu baax kon ñu fay la lu baax te bul fàtte ne loo ma loo jëf danañ la ci isaab danañ la réglé ci lu néew réglé la ci lu bari ci kanamu yàlla doomu aadama bi fàttalikul bis bu ñuy rocc sa groupe say jege njaale say mbokk di la jooy di la juuxu kenn mënul ci yow dara mocckat bi du mën ci yow dara ñaankat bi du mën ci yow dara malakul mawti tiim la di jël sa groupe te boo ci jugee kuusug bàmmeel mi ngi lay xaar mënoo daw amooy pexe te boo duggee ci bàmmeel ñaari malaayika da fekk di la laaj sa boroom di la laaj ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soo tontoo tontu bu jaar yoon texay ga waaye bu fekkee ne ku ne la texay di doo mën a tontu tayit nag lu ñaaw ak lu bon rek moo la fay xaar tayit mu jug doomu adama fii rek la benn mu dugg àjjana wala mu dugg sawara sawara te nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi nee na sawara si àddina bii benn xaaj la ci juróom-ñaar fukki xaaj ci sawara si jahannama te benn xaaj boobu dañ koo jaarale ci ak ndox ñaari yoon bu toll loolu kon duñ ci mën a jariñu mbokk yi lan moo waral gi sàggante lan moo waral gi waru lan moo waral gi tëx tëxlu ak ñàkk xalam xanaa yàlla yeblut ñun ab yonent bu ñëwul du ñu ragal loo mbëggalum sawara xanaa yàlla wàccul ñun ab téere téere boo xam ne yàlla wax na ca lam waajal ñi ko ragaloon ak ñi kàccoor mbokk yi buñ diglu lu baax tere nu bon bàyyi li yàlla araamal buñ ko deful yàlla dana teg sunu kanam koo xam ne moo nu yilif jiite ñu te duñu yërëm bu jamono xate mbokk yi xanaa dañoo fàtte ne jëw ak rambaaj mi ngi bokk ci bàkkaar yu mag yi xanaa dañ koo fàtte ba tax mu tasaaroo xanaa dañoo xamatul ne ak ñaari waajur day tax a gàtt fan ba tax nit mën a dëkk ak baayam ci génn kër di tongoog moom xanaa dañoo fàtte ne naan sàngara day merloo yàlla ba tax mu ne gàññi ci réew mi bañ koy def léegi ay sax yu jar ñaar ñaar ak lu ko gën a néew wala lu ko gën a kawe tuuti mbokk yi xanaa dañoo fàtte ne njaaloo day tax a ñàkk njaaloo day tax a gàtt fan njaaloo day tax déegu bett gi bari xanaa dañoo fàtte loolu ba tax njaalo gi ne tasaaroo ci pénc mi xanaa dañoo fàtte ne mooy yàlla ñàkk jëfa ndigalam day jegeel jàmm bi sawara xanaa dañoo fàtte ne sunu yonant sallallahu alayhi wa sallam wala dañoo xamul ne mas naa toog benn jataay moom alayhi salaatu wasalaam jooy ba sikkanam tooy Xusayfata ibnu Yamaan ne ko yow gëm gën gi mbindéef lan moo la jooyloo mu ne ko lu tax du ma jooy ndax jamono ngi ñëw sama xeet wii lislaam tuuba rek moo koy nekk waaye jëmm ja du fa nekkati dañuy bàyyi julli dootuñu joxe asaka balance yi ñuy dootul bat dañuy kilifa ya yi nga xam ne ñoo jiite dañuy jeng ñay attee dañuy atte ci neen ñuy seere du dëgg di naan sàngara góor jigéen tasaaroo fa ak njaalo ñuy lekk riba jamono jooju buñ ci àggee sama xeet dañuy bëgg way dañuy bëgg musique te jamono jooju coloré day ñàkk day néew war bari neena na jamono jooju jumaa yi ak jàkk yi dañ bari waaye nag xuloo ya ak baat ya ak xëccoo ba ak biijo ba dana bare ci jàkka yi waaye ña fay julli si nag ñu néew néew lañ di ñëw di rukkoo di su jóot jamono jooju buñ ci àggee sama xeet mag ñi ndaw ñi ndaw ñi dootuñu wekk mag ñi te jamono yi buñ ci àggee sama xeet seen waxtaan la ci ëpp mooy wax lu amul ak rambaaj ak jëw jamono jooju buñ ci àggee sama xeet bu ñu gisee dëgg dañ koy bañ duñ ko nangu bu ñu gisee caaxaan ak ay deen topp ko mbokk yi yonent bi sallallahu nee na ci loo xam ne abi musa al asari moo ko nettali yàlla kat su gudd jotee day tàllal loxoom ngir ki doon def lu ñaaw ci bëccëg yépp tuub bu tuubee mu jégal ko su guddi jotee mu tàllal loxoom ngir ki doon def lu ñaaw ci bëccëg gi mën a tuub mu jégal ko suñ borom lii lay nekk ñun ba keroog ñuy xëy jant bi di fenkee sow bu keroogee nag ñu tëj buntu tuub mbokk yi jamono ji yonent bi sallallahu alayhi wa doon wax ak nañ ci nga xam ne da koo xalaat gis ko muy teew ba jaral ko mu jooy ba sikkinam tuur jamono jooju ku ne xam na ne àgg nañ ci jamono jooju nañ ànd ak sëriñ mu Ka ci wasiyatu nisaan mu melal ñu jamono mel nee na axuusu billahi min seytaani li xaw ci jamono ngir nasraani bii xarnu xarnu gone la ak nasaraani ak ceddo yeeg jigéen ñi ak seytaane waroomi koppateeg waroomi curu cara niil nañu tekketuñu tey dara dara waroomi beere ak waroomi kaska ñoo tekki tey ñooy fayu weer fa banque xarnu bi faaleetuñ ku dul boroom dërëm kenn xamatul soxla ci diine ak ngërëm xamaana waa ju ñëw fi yow di jëbblu te jébluwut ci te jubluwut ci dara lut lu yóbbaloo jaay nañu léegi ak sëriñ jëndee njariñ sëriñ bu leen sëriñ bu leen dootul jariñ doo mat sëriñ gaa yaa nga naa sëriñ balaa mat sëriñ dalay mënal dina defaral di la jariñ te xaddu naag xaalis taxul ñu jébbulu te kon nu dem xànd ak morle tey jéggulu ba àgg ci ne déglu ma wax la tey li xaw ci jamono nga xam ne yàqu na fi nun ngir xamunu mu ne bokk na ci xadis axiru samaan mu ne jamono jooju mooy gën a bon ci jamono ji ndax booy yàlla day bari ci dëkk yi jigéen ñi dañuy néew kersa gone yi dañuy néew kersa ñu baax dootul bari naa fekk ak kàccoor day bari dañuy jàng jëm ci nasaraani jamono jooju dañuy màggal borom alal di xeeb ku yàlla réel di gisal ku réer di ginnaawal borom xam-xam mu ne àll ba xaddina na xaddina wëlbatiku na ak dajaali ña féete woon ginnaaw jiitu yaale loolu moo xaw daa mel ni dañ doon dox ña jiitu woon ñu jekk-jekk dëpp ña mujjoon ginnaaw féete ginnaaw sëñ Musaa Ka ànd ñun ba naan dootuñu ànd ak kenn lut ku xam dërëm dootuñu màggal kenn lut borom dërëm dootuñu jiital kenn lut boroom dërëm ak mbokk wéy na lépp wéy na lut dërëm dootuñu dëggal waxi kenn kenn lu dul borom junni wedd ñenn ku xamee junni juddu di buur di buur fari ku ko xamul ñu ber la loo gore gore ku xamee junni fonn baani ñu may la sa sikk jeena ku xamul ñu mën la loo wax ñu weddi loo defar ñu yàq loo jaamu jaamu yàlla rus na seq moo tax ba Ibra Jóob masaar fa Jurbel waxoon na aw bayit ma dollee dëggal samaanu na haada samaanu dirhami man la lam yanal fa innahu lam yukrami jamono jii jamonoy dërëm la ku amul deesu la taram deesu la teral samaanu na haada samaanu fiddati jamono jii jamonoy xaalis la ku xamul ñu folli daal di falati xaalis xaniimatun mu gën lu dul wurus na iluhaa gistee ko fa mbooloo murus rus mën naa la xaa ndaw su la soob nga jël ko insa rabbi mën naa la xaa soo ko joxee borom ndar daraja joo ko ñaan mu may la du dër dër man naa la soo ko joxee waa biro ba koo mën a léew tool ñu yoral la bari ba man naa la soo ko joxee avocat soo yaboon rey nit xamul kii ak kaa man naa la soo ko joxee waa màkka waa màkka yar daw bilaa suftin kasa waa mbàkke bu amee xaalis boo ko joxe waa maram waa waa ñu gërëm dootuñu la mere boo ko joxe waa mbàkke ñu gën jëmutul dara lu juunu juunu kenn du tutul kenn lu rus du ruslu kenn raglutul kenn lu raglu raglu kenn titul kenn lu tit lu tiit du tillu kenn raglu yàllaati mbaa rasuule kenn xamutul bàyyi mbaab sëriñ booy topp ba tax warmaal waa këram ñoom ñëpp doxaani seen soxna moo xew léegi góor ñaak jigéen ñi ñaay fekk xante léegi dii moo xew ci jamono sëriñ Tuubaa nag ne woon na bu ñu agsee ci jamono jii ko bëgg a mucc da gàttal sa tànk gàttal sa làmmiñ loo am mu doy la dénkaane ba mujj dénkaane loolu sëñ Tuubaa wax gàttal leen seen tànk gàttal seen làmmiñ te farlo ci ñaan ak saraxe ak julli juróom alhamdulillahi wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbi man wala inna allaha yaamuru bil adli wal ihsani wa itaai dil qurba wa yanha anil fahsai wal munkari wal baxyi ya'izukum la'allakum tashkurun ittaqillaha haysu kunta ittaqullaha walaw bi siqi tamratin aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum wa li saa'iril muslimin